Bienvenue sur Salam Vision. Yeah, yeah, yeah. Babacar Sadikh Faye di adjoint coordinateur communal Pastef Djiddah Thiaroye Kaw euh, nekk le responsable de la waaw gannaaw yàlla dañuy dañuy santaat yàlla bu baax a baax aussi di wax ni lii def yàgg nañ ko def bii mooy suñu troisième année def nañ ko daaw mu am une réussite totale ren alhamdulilah mu gën a yokk parce que boo xoolee mouvement d' ensemble bi ñu soxla am nañ ko ci patriote yëpp répondre nañ liñ am seen dërëm seen ñaar dërëm comme ni koy defee toujours donc alhamdulilah daal bu ñu santee yàlla nag ci loolu bis bi comme ni ngeen ko gisee donc niñ ko war a taxaw yëpp taxawoo nañ ko eh, day ñëw rek ci li nga xam ne moom la Pastef di doxee chaque jour muy na don de soi pour la patrie parce que àdduna boo ko bëggee doxal il faudrait que lii nga am ko mooy le mouvement d'ensemble mooy ñëpp jugandoo xàccandoo dóorandoo moo tax saa su ne boo leen déggee Pastef temps yéen ngi dégg bracelet yi ñuy wax mouvement d'ensemble boobu la dañu boole lépp suñu xol suñu doole suñu effort yëpp pour la réussite te lool moom moo moom la ñu wane fii ñun waa Pastef Lantar te loolu la ñu dund. Mhm. waaw incha allah tey prévoir nañ mille cinq cent kits parce que on avait prévu neuf cent ak yeneen yu war waat je pense que globalement mille neuf cent kits ndogu yoo xam te dañ ko dañ ko prévoir tey pour aujourd'hui te daaw cinq cent rek la kon tey yeneen mille yokku ci kon sant yàlla daal. Mhm. waaw comme Pastef ni ñuy def rek bu ñu defee appel de fonds wala benn lancement de kañot xam ngeen ni Pastef doomu Sénégal rek ñoo ko séq ñoo fi nekk xool ñi nekk sama ginnaaw yëpp ñi ñëpp fi lañ juddoo samay mag ah samay kilifa rawatina ak jeunes yi ndaw yi samay morom seen xaar lañ génn seen mille francs seen mille seen mille waaye tamit buñ fàttali am nañ ay mag ak ay ndijaay ay tante ñu mel ni euh, grand Alioune Gueye ah ak soxna Khady ñooñu nekk États-Unis di xeexal Pastef su rawatina suñu grand Alioune Gueye nga xam bàyyi ñu benn yoon dañuy génn seen xaa di ko def ci li nga xam te ni mooy ci appui bi nga xam suñu fii nga xam moom lañ nekk muy Lansar pour lépp dox waaw xam nga Pastef duñ ne mouvement sax dafa Pastef dafa am luñ ko duñ ko bindee Pastef dafa doon li nga xam te ni c'est une coordination dafa am boo ñëwee ci commune day am ay cellules comme ñun ci cellule lañ ni ma nekkee adjoint coordinateur communal dafa am ay cellules cellules yooyu nag ñoom dañuy def ñoom ñooy base bi parce que ñun suñu politique du dañuy jël décision rek ca kaw base bi dañuy waxtaan ñu xool li nga xam ne moom moo baax ñu soumettre ko coordination coordination yóbbu ko ci département donc mais nag tey li ñuy def nii dañ ci ànd ak yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen bonne volonté ak yeneen mouvement comme mouvement bi nga xam ne mooy son of the of the time bi nga xam te ne tey euh, patriote moo ci nekk ay patriote lañ me aussi am beneen démarcation bu ñu bëgg def ci social ak lépp am beneen mouvement First of the euh, Sénégal First bi nga xam te ni tamit ñoom dañoo ñëw pour accompagne ñu si bis bi te tu tout récemment gis ngeen activité bi ñu def au niveau de parcelle seen lancement bi donc ñooñu ñoo si ñëw jàpp parce que ñun dañuy liggéey ta loolu lañ gëm. Mhm. tout d' di wax ne dañoo am un regret dañu am une désolation naqar bu rëy naqar bi mooy lan xam nañu révision révision liste électorale nu muy demee révision ni muy demee c'est-à-dire dafa waroon am révision ordinaire am exceptionnelle au moins war na durer six mois. trois mois ñu doon ordinaire yeneen trois mois ñu def ko exceptionnel mais tey boo xoolee état du Sénégal bi nga xam ne tey Macky Sall moom lañ jox li nga xam ne moom moo war a aar suñu démocratie aar suñuy droit ak suñu ak suñu ak ak suñu yelleef moom tey xale yi nga xam te ne waroon nañoo inscrire ci délai bu yàgg gis nga leen dañuy daw ay 5 heures du matin jëm pour bëgg a inscrire kon ñooñu bëgg nañu exprimer seen droit civique mais dañ leen ko xañ loolu day dugg ci violation suñuy droit violé nañ seen i droit loolu la ñuy naqaru mais comme état de droit lañ nekk am ñi nga xam dañ ko war a encadrer lii li ñu njëkk a déplorer la di wax démocrate yëpp ñu xam ne tey li fi xew ñu ngi salfene seen ak ak don yelleef xale yi nag li ci des mooy buñ la xañee dara di la jaay doole te jaay doole jooju dakul nag ba léegi ñu ngi ñuy jaay doole mais teewul xale yi ñoom ñu ngi am détermination ñun def nañ ci liggéey mooy wër nañ def wër nomba bi ngay dégg Pastef di ko def ci cellule la commencé def nañ wër nomba maanaam dugg ci kër yi primo votant yi ñi nga xam dañu war a dañu leen ay non inscrits ñu am droit de vote depuis élection yi pas législative mënuñu voter dañ leen dugal ci nga xam ay liste pour encadrer leen ñu dem inscrire mais ba léegi daa tagga tembe tey boo demee si ci jidda caaray kaw mairie ba waa ji une la ñuy wàcc commission bi ñii des fois au plus tard ne quatorze seize heures ñu ne dañoo sonn te normalement dañoo waroon liggéey ba samedi liggéey dix huit heures mais defuñu ko kon loolu dañ koy déplorer lu ñuy déplorer la kaala boo xam te ne ñun naqari nañu mais nag comme li ñuy wax ñun bàyyeeku ñu benn yoon fi ñu bëgg dem ñun xam nañ ko te ndaw Sénégal lañ ci àndal waa Sénégal lañ ci àndal te baat bi mooy population bi parce que dama naan développement ñeenti pays yi rek la d'abord il faut dégg nga am sa population nga am une planification muy deuxième P bi troisième bi mooy lan ngeen am euh, prospérité boo xam ne waxtaan la ku nekk indi fukkam ñaar dërëm comme ni ñuy def nii mais beneen P bi mooy day tax pauvreté daal di reculer bu reculer dara mënu ko woon ñu may wax nag ñeenti yi lenn rek moo ñu mën a tax ñu ñu am ko mooy ñu am stabilité di pays mooy P mooy que cinquième P bi te Sénégal ñun xam nañ ko président Macky Sall tey kenn xamatul ñun nag ñu ngi ci di kaas li nga xam mooy xew ci commission yi pour ñu jël ci ay matuwaay nañ ci jël ay matuwaay te loolu moom mooy suñu taxawaay donc daal loolu mooy suñu naqar bi nga xam wax nañ ko mais ñun ñu ngi taxaw di ànd ak xale yi leen gunge pour ñu mën a inscrire ci liste électorale yi incha allah ok ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jërëjëf waaw daf ñu def tey distribution ndogu euh, ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm xale yi nga xam ñoom laa àndal di gërëm gërëm waa parti quartier bi di gërëm waa Jëda Caaroy kaw ñu am mbégte bu baax nag tey jii ñëwaat lii ci nga xam defoon nañ ko daaw fekkee déwén di ñaan yàlla fekke ko ay déwéni déwén déwén mooy sunu ndogu bi nga xam te ne ndogu national ko bëgg a def ndax bu ñu sañoon ko def Sénégal gépp ñëpp di ko gis kon nag comme tey dañ ko def ci niveau euh, jidda caaroy kaw euh, xale Pikine yëpp daje xale jidda caaroy këpp yëpp daje ànd ak seen yaay seen i tonton mag seen i ak seen i jarbaat ñu organiser li nga xam ne moom mooy ndogu yi ñu and ànd koog ñoom ñu fas yéene koo def ngir waxee laay taala yàlla rek moo tax ñu di ko def ndax parti Pastef moom yàlla rek la ñuy defal ndax ki nga xamante ne day dañuy dimbalante ku ci nekk xoolal li waay am ak li waay ñàkk dañoo jël yëpp enveloppé ko mu doon benn doole ñu jël ko jox ko ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ñu jox ko di delloowaat ko njukkal sénégalais bi ngir bëgg ñun ñëpp ñu nekkaat ci jàmm yàlla la kon nag ñu di ko def ànd ñi nga xamante ne suñuy papa lañ tamit ak chef de quartier bu ñu leen fàtte ndax ñoom tamit ñoo ñu dooleel ba ñu mën nag bëgg nag mu di ñaan yàlla ko fekkee ay ati at te bu ñu ko fekkee yàlla may ñu luñ ca def te def ko te yàlla rek tax te mu ànd ak jàmm ñuy ñaanal nag sunu président Ousmane Sonko yàlla may ko jàmm may ko ñu ànd moom jàmm ñu ne ci kaso yi tamit da nga xamante ne seen coobara yóbbu leen fa nattub yàlla leen fa yóbbu yàlla leen yàlla génne ndax lu ne am na lu ko sabab waaye nag ba tey nattub yàlla la ndax balaa neex metti kon nag nañ ko sant yàlla bu baax te xam ne lépp dina baax lépp dina baax maa ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëmaat yéen ñi nga xamante ne yéen waa presse bi ngeen fi ñëw tey salaamaaleykum wa man maay responsable des élections au niveau de Djida Thiaroye Kaw euh, di nekk aussi le coronateur de la cellule PASTEF euh, Touba Pikine waa ndogu bi moom activité sociale yàgg na PASTEF yàgg nañ defay activité sociale ku wax sa slogan nekk le don de soi tey booy def activité sociale du nekk luy bett kenn ndax ñun don de soi la ñu woote yàgg nañ ko def di ay yeneen édition lu ñuy defaat ren aussi avant defaat nañ ci ay avancées yu nga xam ne amul woon euh, édition yi jàll ñu ngi ciy sant yàlla di ñaan aussi yàlla mooy euh, moyens yi ñu amoon ak euh, jumtukaay yi nga xamante ne dooleeku na si te amuñu ko édition yi que loolu avancement la yokkute la dañ ciy sant yàlla di ñaan aussi édition yi di ñëwaat ñu gën ci am dam bu neexee yàlla ren bu ren bi 1500 incha allah rabbi voilà voilà message bi ñuy joxe mooy dañuy naqarlu ni nga xam ne moom la tegee euh, processus parce que loo xam ne dafa am révision ordinaire am révision exceptionnelle yow nga ñëw ne da nga def ay révision extraordinaire def lu la neex la Macky Sall il est injuste on le dit et la l'assume Macky Sall respecté wul Sénégal respecté wul loi respecté wul constitution lu ko neex la xam révision yi su fekkoon da ko arrangé Euh, day militer en sa faveur du ko defee nii dina ko teg ci yoon mais xam na ne arrangé wu ko xam na ne suba bu ñu demee élection il va perdre mu salfaañe def ko lu ko neex mais du ko ci génne on fera le maximum parce que ñu ngi dans les commissions on fera le nécessaire ci enrôlement yi bu jàllee également dinañ def ay massification incha allahu rabbi pour sensibiliser le maximum de personnes xamal leen enjeu yi yi war a tax mag Sall jóge ci réew mi parce que du nit ku jub nit ku dëgg ay faux ay faux jël teg leen au devant de la scène ñu nekk di def ay forfait dans ce pays on le dit et on l'assume ragaluñ ko li may li may daaneele rek ma terminer ko mooy dañuy naqarlu arrestation yi nga xam ne mooy am euh, rawatina bi mujjee am démb muy Diomaye fay ñu arrêté ko injustement respecté wuñu ay droit am kan la ñuy arrêté kan la ñuy andil convocation 22h nga war a wuy ji 22h tey plainte sax bu ñëwee chef de quartier bi andil la ko danaan la bàyyil ba suba nga wuy ji mais du ay guddi ngay wuyu kuñ ko wax teguñu ko ci yoon ak euh, heure yi nga ak mo situation bi nga xam ne defee nañ ko di leen wax ne ñu ñun ñu ngi seen ginnaaw am nañ sunu soutien di di naqarlu aussi suñu frère de la JPS le coordinateur Babacar Ndiaye qui est arrêté euh, ak euh, contraintes yi nga xam ne teg nañ ko El Hadj ak partie bi di wax ne nañu gën jàppante gën a suudeew bu ñu ragal te xam ne Sonko mooy suñu candidat te il sera président incha allahu rabbi ci élection yi di ñëw waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu maa ngi tudd Mouhamed Ngom dëkk fii Lansar jiite mouvement bii di euh, mouvement Sun of Time ma ànd ceeg euh, sama gars yi nga xamante ne ñoom chaque année dañ koy def vu que gis nañu Pastef ak taxawaay bi mu am ak vision bi mu am ci Sénégal te ñun ay ndaw lañu am la même vision ñu ne pourquoi pas ñu ñëw ànd ak ñoom am parfaite collaboration ànd liggéey ndax comme ñoo dëkkee koñ bi mën nañoo ànd distribuer ndox bi mu nekk moment de communion moment de bonheur et puis mu nekkaale moment de partage loolu moo waral ñun waa mouvement Sun of Time nga xam ne suñu œuvre yëpp li ëpp ci social la ak ci développement personnel ñu ne pourquoi pas ñu ñëw ànd ak ñi nga xamante ne ñooy waa Pastef ndax gis nañu seen liggéey bëri na ay kuréel yu fi nekk ci wàllu politique ñu bëree bëri mais ñun vu que seen organisation seen détermination ak seen engagement ñu xaw a méngoo ci yooyu yëpp moo tax ñun ñu ne suñu ndogu daal bu ñu koy organiser dañ ci ànd ak waa Pastef loolu moo waral tey ñu ñëw ànd ak waa Pastef vraiment di kontaan di sant di gërëm ñëpp macha allah